Thank you. internet ñu ngi leen di dalal bu baax a baax ci seen euh, rubrique invité de la rédaction te nag ñu invité ki nga xamante ne mooy monsieur Mamadou Diagne nekk président du réseau national des entreprises du Sénégal te ñu amoon fii benn panel bu yaatu a yaatu euh, bu wax euh, ci ñu ñëwaat rek ci activité boobu ma monsieur Mamadou Thiam ñu ngi lay nuyu monsieur Mamadou Thiam moo nekk président du réseau national des entrepreneurs du Sénégal te di ñu nekk au niveau de grand de grand def benn panel bu yaatu a yaatu a yaatu ci l'immigration clandestine monsieur Thiam ñu ngi lay nuyu nga présenté wu à internet wu Sénégal euh, maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay bu baax a baax a baax madame. Euh, Faye madame Paye. madame Paye maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu say internet internet wu Séné Info yëpp maa ngi leen di nuyu. di nuyu senegal di nuyu àdduna di leen wax bisimilah maa ngi leen di tatagal le RNES le le RNES réseau merci beaucoup le RNES le réseau national des entreprises du Sénégal euh, ñu ngi ko lancé en deux mille deux mille vingt trois mu nekk année bi donc est ce que mën nga ñëwal un peu sur objectif wu RNES. waaw RNES ñu ngi ko créé euh, def lancement bi le 7 février deux mille vingt trois benn hôtel de la place bu nekk fii bon RNES li ko tax a jóg mooy naka la ñuy def ba. bokk ci ñi defar suqali économie Sénégal ñi économie Sénégal na boo ko déggee mooy entrepreneuriat moo koy defar entrepreneuriat bokk na ci li nga xam ne moom mooy suqali réew donc économie Sénégal ñun dañoo bugg a bokk ci ñi koy développé wala ñu yeesal ko sax waaw loolu moo tax a jóg Renez mm-hmm. waaw benn levier la daal boo xam ne mm-hmm. levier bi levier buy dimbale xale yi la dimbale réew mi yëngu ci wàllu entrepreneuriat daal loolu laa ko mën a waxee. d'accord bi ngeen ko créé ba tey euh, mën nañ mën nañ am xayma am pa euh, membre yi nga xamante ne am. bon li nga xam ne moom lañu am ci biti gis nga fi sànq bi nga toogee ci panel bi gis nga ku représenté Kaolack représenté feneen mais dajaguñu ci réew mi wax dëgg yàlla ñu ngi Kaolack ñu ngi Diourbel ñu ngi Mbacké ak euh, Ngaye mexe am nañ fay représentant ci mais ñu ngi ñu ngi nag continuer di def suñuy euh, installation ci région yi ñu ngi waaj benn tournée nationale boo xam ne ñëpp lay doon waaw loolu daal moom xam naa ne foofu lañ toll daal. waaw bi ngeen taxawalee RNES ba tey yan tuuti faar ngeen jot a defagum. xam nga RNES nag bi ñu ko taxawalee léegi yàggul mu ngi soog a juddu tey nit du juddu rek dox dañoo toll ci raam mm-hmm. donc ñu ngi def ay formation ak xale yi bi événement yi amee aussi tamit nga xam ne actualité la métti na ci lañ soog a def panel bi ma bi panel bi def nañ panel waxtaan nañu ci euh, tey fii ci Grand Théâtre mu nekk waxtaan bu am solo ak yow fekkee nga ko teewe nga ko ay xam-xam génn nañ fi njëriñ génn na fi donc euh, ci loolu lañ tollu daal. si panel boobu la ñuy ñëwaat ngeen jël comme thème l'immigration clandestine lan moo waral choix boobu thème bi. waaw choix bi lu tax ñu def ko mooy dañ dem ba gis ne euh, réew mi ñu ngi ciy bëgg a sonn parce que ku say ndaw di dee ci benn mbir foog ñëpp war nañ cee wax waaye waruñ yem ci wax kese dañoo war a wax ba pare wax joo xam ne dafay am solution. Mhm. loolu moo tax ñu jël thème bi ndax xale yaa ngi génn di dem ci ndox mi. xale yaa ngi génn di jël suuf si xale yaa ngi génn di jël Nicaragua euh, la tudd xaw ma vraiment yooyu soo koy gis ci réew war nga cee mën a yow tamit apporter sa sa sa sa sa xam-xam apporter sa doole indi sa kattan ak sa xam-xam mm-hmm. loolu moo tax ñu jël thème boobu di ci waxtaan te yemun duñ yem ci lii waaw il faut ñu wax ci bu baax a baax incha allah. ok tey wax ngeen ci bu baax a baax d'ailleurs sax ut ngeen pare ki nga xam ne moom mooy honorable député yooyu Diop mhm. mu indi ay ay ay yu baax a baax wax si aussi ay def si ay engagement am est-ce que mën nga ñëwaat am sur euh, engagement yi nga xamante ne monsieur le monsieur le kii honorable député Diop Sy euh, jël na ko. waaw honorable ñu ngi koy gërëm moom encore beneen yoon ci. ñëw bi muy ñëw di ñu parrainer parce que moom mooy suñu parrain même bi ñuy def lancement bi à l'hôtel Pullman moom moo newoon suñu parrain dañ koy parrainer nag parce que c'est un entrepreneur ñun bi ñu koy xam entrepreneur lañ ko xamee mun yor entreprise bi ñuy wax UDE urbaine d'entreprise donc ñun ci loolu lañ ko parrainer bu mu fi ñëwee it li mu fi wax jël nañu engagement yi bu baax a baax a baax parce que damaa wax sama SG bi ma ne ko prends note parce que ça c'est très intéressant donc danañ ko jëfee danañ ko jéem a concrétiser incha allah. d' accord donc ay ay jéego yu baax génn fi ay engagement yi comme ni ko waxee génn génn fi tey jii tey jii jeunes yi jusqu' à présent ñu ngi dem immigration clandestine ban conseil nga leen di jox tey en tant que voilà. Euh, conseil bi ñu leen bi ñuy jox xale yi. Mm-hmm. mooy nañu gëm seen bopp ci seen réew. Mm-hmm. te nangoo liggéey nangoo jàng métier. parce que nit même boo demee à l' étranger mm-hmm. mënuloo liggéey te amoon métier moom la ñuy wax ni sànq il faut entreprendre. comme nag da nga war a jàng soog a xam xam soog a am il faut ñu njëkkee ci yooyu loolu lañ leen di conseillé bañ a jékki rek euh, sa benn doomi tante wala sa benn kii dem na Europe ñëw na ñu naan la yow gis nga kii yaayam a ko liggéey du loolu du liggéeyam du yaayam a ko liggéey yooyu bien vrai que liggéey ndey gëm nañ ko ñun am na parce que ay africain lañ ay sénégalais lañ mais liñ leen di conseillé mooy na ñu toog fi jàng métier liggéey fii buñ ko defee danañ dem seen yoon man jox naa fi benn exemple léegi ci kaw. man bi may jógee Kaolack di ñëw Dakar hmm. mbuus bu la laa yore fii laa Dakar laa ñëw ci laa jàngee lu bari ba nekk entrepreneur di liggéey. Hmm. donc loolu misaal la parce que ku nekk sa bopp doy na la misaal. loolu lañ leen di conseiller nañu muñ te te góorgóorlu te xam ne àdduna du benn fan te teraanga jarul bakkan dégg yàlla jarul bakkan. Hmm. Euh, diine islam diglewuñu ko leneen lu nekkul islam aussi digalewuñu ko donc teraanga nekkul loo xam ne dama ci war a dee par force moo tax nag loolu laa leen di digal man ndaw yi. waaw si sa si sa jaar jaar si sa parcours wax nga ko wax nga nga tout à l'heure jox nañ la sa benn visa boo xamante ne visa Allemagne la woon. Mhm. mais nangu woo dem ça veut que yow fu mu nekk yaa ngi encouragé jeunesse bi pour ñu toog si seen réew liggéey. waaw man dama ko gëm dama yàgg gëm teraanga sa biir réew la gën a neexee loolu alxuraan dina ko wax da koy njëkk wut sa biir réew ba pare euh, man bi may ñëw fii ñoo nekkoon ABCD di yóbbu xale yi ñuy jàngi sama benn xarit bu ñoo Basirou jàng moo jógee London ñëw ubbi ko ñu nekk ci ñun ñëpp nekk ay ndaw am ay 18 <clears throat> boobu la dem dem neex visa Allemagne la ma njëkk a wutal ma ne ko basiiru man dew ma fet mu dem wutiwaat passeport diplomatique ma ne ko Basirou dew ma fenn ba fi may wax ak yéen am naa benn xarit Macky Sall da ko nommé direction bi mu yor direction yi gën a mag ci réew mi la su ma mu ne ma yow lu tax bëggoo passeport ma ne ko non soxla ma ko chaque jour ma ne ma passeport diplomatique bi indi ñu defar ma ne ko soxla ma ko su ma demee ci ambassade bu mën a doon dañ ma may visa ak sama waa kër ñu tukki te ba may bañ ba ma nekkee ndaw bëggu ma a dem bëggu moon woon kenn yóbbu ma ku ci góorgóorlu nag. di nga yóbbu sa bopp te kenn du la yóbbu te da ngay vacances foofu la neexe kon léegi da ngay ñaax jeunes yi ñu gëm seen bopp comme ni ngeen ko waxee léegi. waaw damay man daal fu ma damay ñaax xale yi nañ gëm seen bopp fii ci réew mi liggéey fi am fi teranga say mbokk dañ la gis say waajur dañ la gis sa njaboot yi dañ la gis sa doom yi dañ la am naa xarit bu nekk Amérique 19 ans ci ren yaayam ak papaam ak magam yëpp dee nañ te mun a ñëw. donc loolu teraanga jaru ko di ñuy suul sa bàyyi nga gis ko moo gën a neex loolu man su ma demoon à l'étranger en 2013 bi suma papa di génn àdduna du ma ko fekkee te biñ koy denc kaw la dem taxaw tiim ko samay xarit jóge Dakar ñëw jaale si ma mais loolu moo teraanga àdduna xale yi il faut ñu wax leen même ci l'islam l'islam nanguwul dee ngir alal léegi nag da ngay dégg ñu ne la barzaq wala barza bi ñu nekk Kaolack te phénomène bii du léegi dafa gën a am ampleur bi ñu nekk Kaolack am na kenn ku doon wax xaalis wala bàmmeel bu sori mais Cameroun la dee moi je me dis que vraiment c'est pas la peine ñuy daw ci ginnaaw xaalis boo toogee fii liggéey dimbale say wajur xaalis mooy daw jëm ci yow waaye doo daw jëm ci moom te xaalis jarul faatu loolu laa lay wax ne xale yi nañ ci nañ ko gëm. buñ ko gëmee yàlla dina ñëw. tout à fait ñu ñëw rek si perspective euh, RNES bi yan man mooy seen perspective à l' à l' avenir les perspectives du RNES. waaw RNES xam nga mooy wax naa la sànq ne c' est un levier. la xam nga levier moom xam nga levier moom loo xam ne lii la day dem rek. Mm-hmm. waaw ñun mu ngi nii moo ngi la ko wax ne RNES est un levier de développement. loolu la ñun levier lañ pour développement pour économie solidaire basé basé sur notre propre ingénierie ça veut dire que li ma laa ñu gëm ko suñu biir dañ gëm ne RENES war na mun a euh, bokk ci li verser la tendance de l'économie de ce pays ñun loolu mooy suñu objectif objectif RENES dëgg dëgg dëgg mooy on veut inverser la tendance de l'économie de ce pays Comment inverser la tendance C'est la, la question. mooy ñun pour que ñu ñu nga ne tey assemblée di voté budget hmm. budget boobu ñu voté ci port beeg douane beeg impôts yi ñuy fay ak nangam ci lay jógee hmm. donc kon ñun ba léegi liggéeyaguñu ñun suñu budget ñun Sénégal liggéeyaguñ ko hmm. pour ñu liggéey budget bi nekk ñun ñoo war a liggéey ñun sénégalais yi ñun ñoo ko war a liggéey fii ci réew mi di ko fi def ba di ko exporter muy dem ci ñeneen. tout parce que tey le budget de ce pays là niñ ko mën a liggéeyee mooy duñ fi nekk rek di wax ay euh, entrepreneur laa ay euh, comment dirais encore euh, homme d'affaires laa ay. nangam laa nangam laa yooyu yëpp day sori da ngay jàngal xale yi li njëkk mooy ñu dem ci tool yi. Mhm. xam nga entrepreneur mooy développer réew. mais li njëkk tool yi mooy développer réew suuf si l' agriculture. Mhm. da boo demee en Europe man gis naa Toulouse. koo xam ne boo taxewee fii toolam mu nga fële mais tool bi ci montagne la ne. Europe amul suuf bu tàlli ñun boo jógee fii di nga romb Kaolack dem ba. Ziguinchor jaar euh, Tamba jógewaat fii jaar Saint-Louis jaar Matam Ranérou Bakel dëkk yooyu yëpp ba Kidira suuf bu tàlli ma fa am donc ñun li ñuy lekk mënoon nañ ko bay ci réew mi mais toujours nit ñi nit ñi xam nañ problème bi de ñu ngi koy wax do saa yoo seetaan télé di nga dégg ku ne dañoo war a bay mais dañ ko war a concrétiser loolu mooy solution bi nañ ko def dañ ko def ñun loolu mooy suñu moo ñuy yëkkati. Mm-hmm. sa kàddu bu mujj. sama kàddu bu mujj mooy di sant yàlla di leen gërëm yéen ñu ma may opportunité moo mën a exprimer wu mën a wax li nga xam ne moo nekk ci man euh, di gërëm samay jur yi ma yar ba ma mën a toog ci nit ñi wax ñu déglu ma di ñaan ci suñu réew jàmm di fi ñaan sutura ak dal ndax dal dafa am solo ci réew. Euh, sama benn Ivoirien def na ma bis bu ngeen amee jàmm amee amee musiba ngeen di xam lan mooy njëriñu jàmm parce que ñoom mos nañ ko man nag loolu laay réew mi yàlla am jàmm yàlla na suturaam ndaw ñi yàlla nañ am liggéey ba seen xel yi toog ci réew mi te ñu bàyyi naxante ak xale yi nañ bàyyi naxante bi ñu naxante ak xale yi parce que dañuy naxante ak ñoom l'état day naxante l'opposition day naxante te réew politique amee wu ko et Sénégal il faut qu'on arrête de faire la politique 24 heures sur 24 heures mois sir mois année sur année lépp mois je me rappelle depuis 2000 jusqu'à présent Sénégal dañuy politique moom mooy indi défaite bi ñu am dañu am défaite bi yëpp politique ko indi te ils veulent monopoliser ce pays te motuñu 10 pour cent de la population les politiciens motuñu sax 5 pour cent il faut qu'ils arrêtent de manipuler les jeunes di leen nax Eh, wax nangam sàngam bu moo faloo boo faloo doo def dara parce que liggéeyoo xaalisu réew mi rek ngay yor fauteuil bi nga toog moo la permettre nga am dara avant ngay ñu lay fal munoo am cent franc donc doo def dara da ngay naxe rek nañ bàyyi naxe bi loolu mooy li may gën a wax ci état parce que nañ bàyyi naxe xale yi kenn war leen di nax parce que xale mooy yaakaaru réew donc na politiciens yi bàyyi di leen nax ba pare il faut ñu wax li ñuy wax nit dafay am savoir faire la retraite Sénégal du ñu bàyyi te génération bu ne ak xam-xamam nit bu demee ba dund ba yenn âge yi dafa war dem toog ñeneen ñëw parce que loolu mooy waral ñooñu seen xam-xam mun a développé mun a tolloog xam-xam bi xew ci jamono boobu loolu bokk na ci vraiment li nga xam ne man dama koy méttilu di ko di ko naqarlu mu xoolee mag Sall def na fi keroog benn waxtaan ci palais bi mais ay paa rek laa fa gis ak ay xale paa bi am soixante-dix ans waxtaan ak booy bi am vingt-cinq ans expert niveau yi bokkatuñu mentalité yi bokkuñu loolu bokk na ci li nga xam ne vraiment ñu ngi koy ñu ngi koy ñaxtu waaw loolu daal yi sama mot de la fin maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm sa cameraman bi vraiment je vous remercie au fond du cœur. merci Mamadou Thiam euh, chef internaute de Sene Info euh, International comme ni ñu koy leen ko waxee tout à ngi doon dalal suñu invité euh, de la rédaction sur Sene Info International monsieur Mamadou Thiam nekk président du RENES mu nekk le mouvement des entrepreneurs du Sénégal ñu ngi jëlee fa jëlee fa bu baax a baax si teewlu bi te di leen jox rendez-vous si beneen rubrique invité de la rédaction sur Sene Info International. Merci beaucoup.